Ndeye Mariam Ndiaye asalaamaaleykum mbokk déglu dal leen ak jàmm njiitu réewum Sénégal di Macky Sall daal dina jëbbal assemblée nationale ab projet boo xam ne euh, da koy jox jumtukaay ak i matuwaay yi nga xam ne nag assemblée nationale moom moo ko waroon a jël ngir fexe nag ba ñu xeex ci li ñu waree lépp loo xam ne dafa jublu euh, ci feebar bi di coronavirus autolikaay bi di Sud Quotidien mi ngi ñee xamal ne projet de loi boobu nag yegg si na ci taabalu euh, président wu assemblée nationale te nag ci waxtu yi nga xam ne nag moom la ñu dëgmal jëriñ ñu dénk wàllu yoon di maître Malick Sall moom dina taxaw nag ci kanamu député yi daal di ñëwaat nag ci wàllu projet de loi boobu nga xam ne am na ci lu tolloog ñeenti article yoo xam ne moom lañ ci nemmeeku mooy feebaru coronavirus autorité bi di ñu ko am fii ci biir réew mi ñu ngi toll nag ci téeméer yu tegal ñeent fukk ak ñaar mu am nag ñaar fukk ak juróom-ñaar yoo xam ne daal dinañ ciy wéer kon nag fi mu nekk nii nag téeméer téeméer ak fukk ak juróom daal la saytu seen wér gi yaram limu ñi nga xam ne nag ñoom ñooy am feebar boobu ñu gis nag ne saa su ne dafay faral di yokku loolu sax moom moo tax ba professeur Moussa Seydi moom mi nga xam ne nag moom moo jiite service des maladies infectieuses ci daal di am ab tiitange di xamle ne su fekkente ne nag kaay yi wàññeekuwuñu daal suñu moytuwulee moom la ñuy wax confinement en général moom lañ fi fas amal ay kàddu professeur Moussa Seydi autolikaay bii di Vox Populi tamit moo koy fësal ndaxte moom nee na daal li ñuy tuddee ay cas communautaire loolu sax moom moo ko gën a jaaxal loolu sax moom moo tax tamit ba muy xamle ne su fekkente ne nag cas yooyu wàññeekuwuñu suñu moytuwulee moom fi yekk fukki fan ak juróom daal confinement général lañ fa yéene amal coolikaay bii di réew mi quotidien moom it di ñu jottali ay kàddu professeur Moussa Seydi moom it gis na ne daal ne limu ñi am nag coronavirus ñu ngay wéy di yokku saa su ne te loolu kay ngir fexe nag ba daal di koy dakkal ci ni mu waree confinement daal la daal di diglee moom tamit li ni mel la daal di fësal ci biir julikaay bii di Dakar Times suñu naataangoo yi di ñu xamal ne su fekkente ne topp ñu ko digle yi nga xam ne daal moom la ñi ñànk lépp lu jublu ci wàllu wér gi coronavirus ak nañu ko war a mën a xeexee ba daal di koy dakkal fii ci biir réew mi ndaxte ki nga xam ne de moom mooy professeur Moussa Moussa Seydi moom de am na ci nag am njàqare loolu professeur Koumba Kane bu IRSF moom sax daal dinay xam ne ne ci wàllu feebar bi ñëpp ci war a mën a am njàqare ndaxte feebar bi nekk na loo xam ne nag day allawtiku ñu bëri te it faw ñu daal di ciy jël ay matuwaay ci wàllu matuwaay yooyu gouvernement bi la mu tàmbali moom mooy état d'urgence ak tamit couvre-feu ñu gis nag ne bëri na nag ay doomu réewum Sénégal yoo xam ne daal ànduñu ci ñu mel ba sax dañu koy jalgati a culikay bii di xam ne nag jàngalekat la ci wàllu psychiatrie ci université Cheikh Anta Diop de Dakar daal di ne xam ne nag lan moo waral sénégalais yi di doxalee li ni mel ndaxte moom la mu gis moom mooy nag ne yombul la nga nekkoon démb ak barka démb tey jii ñu xëy rek bëgg la kaa soppiloo loolu moom laata nga koy def faw nga daal di fippu loolu nag moom moo tax ba professeur Aïda Sylla moom mi nekkoon ganub émission bii di objection fii ci biir rajo Sud FM daal di xamle ne ñëpp ci war a jàpp nag ci wàllu xeex boobu ñi nga xam ne ñoom ñooy takkader yi tamit war nañu def seen kéemtalaay kàttan ba ñu respecté

activiste ca conseil économique social et environnemental ñooñu ñëpp nag war na ñoo mun a jël ci seen i caisse yi ngir war kaa a dugal ci xeex gi laas yéene kaay sax dañu xamal ne ci njeexteelu ay bés bi ñi ngànk nag kuréel bii di force covid 19 ñu ngi doon dajan di ñëwaat ci koppar gi nga xam ne nag moom la ñu soxla ngir xeexee ci ni mu waree coronavirus boobu ba léegi ci wàll gi ni mel aujolikay bi di la soleil moo ñu xamal ne waa Chine ñoom it dugal nañu seen loxo bu baax a baax ci xeex bi ni mel ndax ci daal dinañuy jébbal réewum Sénégal ay masque yoo xam ne dañu koo soxla masque chirurgicaux masque simple ak yeneen jumtukaay yoo xam ne daal réewum Sénégal dina ko soxla euh, ci wàllu faj nii nga xam ne nag tey jii la ñuy faj colikaay bii di Les mu ngi ñëwaat ci ay ñaxtu yoo xam ne dañu ko daal di fësal ndaxte ñoom daal dinañuy gis ne seen nekkin ci biir bërëb yi nga xam ne moom la ñu leen yóbbu ngir ñu daal di fajoo nekkul daal lu mucc ayib seen lekk yi neexul doyul ba pare sax laat ñu leen koy jox moom dafay guddee ñenn ñi sax di xamle ni ñoom fu mu nekk nii ñu leen di faj daal dafa mel Sénégal muy nag ay yuuxu yoo xam ne daal dinañu koy fësal autolikaay bi di les échos di ñu ko jottali tey jii di ñu xamal ne njiitu réew mi ak kii di Abdoulaye Diouf Sarr war nañ cee i matuwaay fële nga xam ne nag moom mooy Espagne euh, foofu moom feebar bii di coronavirus ma ngi fay lëmbee euh, ci lu weesu nag juróomi junni nit yoo xam ne ñàkk nañ ci seen bakkan ci ñooñu ñu daal ci nemmeeku ab doomu réewum Sénégal moom sax da yëngatu ci wàllu commerce moom moo nekk nag sénégalais bu njëkk bi nga xam ne daal feebar bii di coronavirus daal dina koy yóbbu foofu nga xam ne moom mooy ca Espagne jeexalee ko ak turikaay bii di libération moom mi ngay ñëwaat ci ab samba booy bu mu tuddee ab mi ngi xam le ne dafay woote ne docteur la nekkite yoodu ci lenn docteur Amadou Samba turikaay bii di libération ngi ña xamal ne waa sûreté urbaine daal dinañu koy teg loxo moom sax laata nag ñu koy arrêté jot naa def nag benn test ci wàllu coronavirus ci koo xam ne da doon liggéeyee ca caisse des dépôts test bi dafa négatif te nekkite yow deful lenn loo xam ne nag dafay firndeel li kooku di docteur Amadou Samba bokk ci cadre républicain taa bi féete na ko gannaaw lii moo nekkoon bëgg lukat yi li gën a fës biir autolikaay ji ñu leen lu bu sak jaam ñaanaa njaxtu lu bu